ngeen ne loolu nag dafa leen wan leen yow fulla pour ñu jëm bi nga xam ne la soxla de fii di coow lépp Sénégalais may nañ leen chance ñu gérer mbiru dëkk bi ñii dañ leen jox ñuy condamné leen ñu dellu si waat naan yaay yooyu yaay ñoom ñooy ñu jub ñoom ñooy ñi nar a développé Sénégal te bu nekk yor nañ ko fi mosuñu def preuve de leur pragmatisme preuve efficacité Macky bi mu nekkee premier ministre Sénégal ci la autorité yi commencé ci la liggéeyu Abdoulaye Wade feeñ ba Abdoulaye Wade ko tàgg yi nga xam ne Sénégal ko fàtte mais am ñeneen ñi nga xam ba leen Abdoulaye Wade defee premier ministre amul lu dul def lu dul bëgg coup d'état Abdoulaye Wade ne dañuy jël nguur gi parce que ñoo taxaw yi naan kenn wax ci ñaaw kenn gis ne dafa wax waxeet am na ko fi taxawoon na day xeet Abdoulaye Wade 2007 desul lu dul ñu dem élection muy am luñ ko jox mu ah. ne na crédibilité jox nañ leen alalu réew mi ñu facturé fii garab bu ñu ci Thiès garab bu ñu que véritablement Sénégal fii ñu toll nii opposition bi ñu am opposition bu nasab la ñoom ñëpp koo ci gis dossier boo ko ko joxee génnee ko ko dinañ génnee ne li mu def joxe def Sénégal suñ ko defalee bilan Sénégal yi dinañ ko ñëppi kon nag werante amul ñoom dañuy teel a pare. Guédiawaye je vous donne encore rendez dans quelques semaines dans quelques jours en compagnie de la coalition parce que ici la coalition est une réalité. le dernier message que je voudrais lancer mooy mbooleem responsable waxuma affaire waxuma benno mais képp kuy wootewu leen Macky Sall ay jàppale la nga fàtte sa bopp tuuti ngeen ñëw ñu joxante loxo. xam ne le seul combat bi nga xam moom lañ war a mëne c'est le combat de la réélection du président Macky Sall man loolu dama ko si loo ma def ma wax baal ma yen ma yen ko ndax balaa nga naan fa gars may wax naan naan dina nekkaat meeru ngay dawal ma ne man li ma waroon liggéey ci Guédiawaye def naa ko ba pare. tanuma tanuma campagne mairie taluma li ma tal mooy campagne présidentielle. suñu paree présidentielle Macky Sall bu ma nee yow dama lay rétrogradé nekkatoo maire ville léegi dama lay def euh, président. kon ma ne ko waa góor ndax nit da ngay am kilifa waaye xam nga ne waa kii waay su ne waxee loolu sax ku nit ne ah bañ su ko sax papa yi ngi tey liggéey bu rafet waaye nag xam naa su boobaa waa Guédiawaye duñ ko nangu. dañuy bañ dañuy bañ. maanaam si am na li ngeen